بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu ñoo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey ñu toll ci suratu nisa ñuy jël tey aaya 56 57 ñaari aaya yu nu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy al kufru wal maasi mujibatun lil azabi al uxrawiya mbokk jullit yi nu ñépp nanu ànd xam ne weddi yàlla ak ay bakkaar yu bari li muy waral ci jaam mooy mbugal ëllëg àllaaxira ab julit na yëg ne weddi yàlla subhaanahu wa taala lor la ci moom rawatina ay bàkkaar ay bàkkaar yu bari ak weddi yàlla li muy waral ci jaam bi mooy ëllëg yàlla subhanahu wa taala jëflanteeg yow te mooy fay la fay boo xam ne xaaroo ko woon te mooy mu mbugal la wa zalika li anna al kufr wa shirk wal maasi allati hiya tarku al wajibat wa fi'lu al muharramat tudannisu an nafs ñun ñëpp nañu ànd xam ne weddi yàlla tabaraka wa taala te mooy kufru ak bokkaale mooy shirk ak ay bakkaar mooy bàyyi santaane yàlla saa yoo bàyyee li la yàlla sant ci lim lay jubal mooy ay bakkaar bakkaar ci lim lay jubal mooy bokkaale bokkaale fu mu la jëme mooy weddi di nga bàyyi lépp lu la yàlla santoon nga dugg ci bàkkaar boo duggee ci ay bàkkaar sa bakkan bi tilim nga salte ndax kuy bokkaale walla kuy def ay bàkkaar kooku mënul set loolu tax def katu bàkkaar bakkanam moo salte bakkan bee tilim di ngeen di jàng ci alquran waat bi gën a gudd atwalu qasamin fil qur'an dañ koy fekk ci suratu suratu suratu Shams dan la yàlla di giñ foofu qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba yàlla nee na dëgg-dëgg ki texe mooy ki setal bakkanam ki perte mooy ki bàyyi bakkan bi tilim al imaamu Busayri yàlla na ko yàlla yërëm da doon wax an nafs ka tifl nee na bakkan mook liir buy nàmp ñooyam soo ko feralee ci soow mu fer boo ko bàyyee muy nàmp boo ko bàyyiwul mu màgget gis nga xale buñ koy nàmpal gis nga ni muy fippoo di jooy di yuux léeg-léeg sax yenn saa yi mu jooy ba feebar c'est parce que dañ koo xañ li mu bëgg kon bakkan tamit noonu lañ ko war a def dañ ko war a xañ li bon li muy fippu di dem nañ ko yëgal ne du fii nga jëm ndax ay bakkaar day tilimal nit mu ne fala tusbihu ahlan li duxulil janna su boobaa nag boo feesee del del del ay bakkaar lu mu lay lor yan gàllankoor la lay indil mooy da lay tere dugg aljanna da ngeen alquran yàlla mu ne fa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiyal maawa képp koo xam ne wóor la ne le leer na ci yow ne bëccëg wala guddee ngi ñëw di nga taxaw ci sa kanam borom bi mu la wóoree ne di nga taxaw ci sa kanam borom nga laabal sa bakkan ba tere ko bakkaar yi borom bi tabaraka wa taala nee na yow de di nga dugg aljanna kon loolu mooy lu njëkk lu ñuy jëlee ci ñeen ñaari aaya yi mooy fexe ba sori ay bàkk kufru mooy weddi yàlla al kufru loolu ñu naan weddi yàlla nañ fexe ba sori ko wal maasi ak ay bàkkaar ndax ñaar yooyu day tax ëllëg yàlla mbugal ab jaam ñaareel mbokk yi mooy bayaan ay dañuy leeralal al xikma fi tabdilil julud yàlla daf ñuy leeral ëllëg yowmal xiyaam buy lakk nit ñi safara lan moo tax muy changer der yi ku ñu lakk sa der ba nga xëm ba nga ñor xom xëm ñu changé waat sa der lu tax loolu yàlla daf ñu koy jàngal ci aaya bi ñu war a jël tey mooy lan alxikma fi tabdilil julud li ahli naar loolu nag waa safara la waa safara bu leen yàlla lekk lakkee ba der bi ñor yàlla day changé waat pou bi aaya bi am na benn boroom xam-xam bu mag benn savant ci wàllu médecine bu mu tuubloo bu mu déggee loolu mu jaral ko gëstu ba mu gis ne li yàlla wax muy dëgg naka la yàlla di changé peau bi su peau bi lakkee mu changé waat ko peau bi lakk mu changé waat ko loolu moo tuubloo waa jooju mu ne wahiya an yudaayuma ixsaasihim bil azab bokk na ci xikma yi tax yàlla di changé ñi muy lakk safara dem nañ ci yàlla musal ñooñu nga xam ne texee dinañ ba jalla jalaaluhu jël leen jógal leen ci biir safara ni mu leen di lakkee di changé seen peau yi bokk na ci li tax yàlla def ko mooy lan pour ñu gën a sax ci biir safara di yëg métit éternellement ñuy yëg métit dootuñu noppalu ñuy yëg mbugal moo tax yàlla di changé der bi loolu moo tax mbokk yi bokk na ci métit bi yàlla di teg waa safara mooy dootuñu dee xam nga métit mi ngi yem ci àdduna fan la métit yem dee fi mu nekk ni boo boo jàppee nit nga teg ko ci mbugal lu mu àttanul rek ruu bi day daw bàyyi yaram bi su ko defee waa ji dee loolu moo indi dee su amee choc li dal ci nit ki ruu doomu aadama bi mënutu ko tenir ndax métit ruu bi day daw bàyyi yaram bi nit ki dee yowmal xiyaam nag ruu da dul daw du mën a génn lu tax ndax dundu àdduna ak dundu alaaxira du benn dundu àdduna bakkan bi moo jiite woon ruu bi topp ci dundu alaaxira ruu bi mooy jiite ba pare alaaxira dee amu fa àdduna dee moo fi am ndeysaan moo tax niti àllaaxira yi bu leen yàlla lakkee ci biir safara ba ñu sonn xamatuñu nu ñuy def dañ naan ay yàlla ay waay rey nu waay ay waay nañu dee waay xoolal doomu aadama bu sonnee ci àdduna est-ce que day wax naa dee mu dem àllaaxira bëgg dee tey àdduna ci ñun kan mooy ñaan julli ba pare daane allahumma yow yàlla yal nag ma rey fii ma toog kenn du ko def de wala kan mooy ñaan dee fi nga toog ëllëg àllaaxira nag doomu aadama day ñaan dee lu tax ndax dafa yaakaar ne bu deewee noppalu moo tax yàlla mu ne summa laa yamuutuuna fiiha wala yaxya adduna àllaaxira dunu dund dunu dee yàlla da leen di bàyyi bi safara ñu lax ndeke hikma bi tax yàlla di changer deru nit ñi àllaaxira mooy pour ñu yëg mettit ndax bu ñu lakkoon der bi rek mu xëm après nga dee jeex na bokk na ci li asma waxoon doomam abdullahi ibnu zubayr keroog ba muy xeex ak xajaaj mu ne ko yaay dama ragal mu rey ma de bu ma reyee mu def ci sama yaram loo xam ne soo tiimee sama néew sa yaram dana daw ndax xam naa ki may xeexal mu ne ko doom xar buñ ko reyee ba pare di ko fees ba koy saam dootul yëg métit demal fekkee yaa nekk ci dëgg xanaa xar bu fekkoon ne bi ñu koy rendi après rendi bi fees bi après fees bi daggate bi saam bi lakk bi day yëg métit bi musiba am na waaye kañ lay gëj a yëg métit biñ ko rendee ba mu jeex alaaxira nag métit googu ruu googu dee googu moo fa amut moo tax gars yi dañuy bëgg dee duñu dee léegi lu ñuy def dañuy woo Malik mooy kii garde samara ñu ne ko yow Malik udu lana rabbak li yuxaffifa anna yawman allahu akbar ay waay Malik wool ñu sa borom bopp léegi ne ko ñun waxuñu sax mu baal ma waxuñu léegi mbirum baal xam nga léegi lu ñuy négocier waaye benn bis rek nañu may benn bis rek ñu noppalu benn bis allahu akbar benn bis moo tax mbokk yi am na lu nuy xaar lu rëy rëy te du lu ndawa li nuy xaar du lu ndaw de lu rëy moo nuy xaar lu tax mu ndax lu rëy lan nu sant lu rëy lu ñu sant lan mooy lan mooy tawxiid kennal yàlla moom lan nu sant buñ ko lànkee buñ dajeek yàlla du baax neexulam xool ko sa bopp rek fi nga toog amal doom nga yónni ko rek mu génn dajeek keneen mu ne ko bàyyil sa papa li mu la yónni ñëw demal li ma la yónni ba xale boobu dem yendu ci yónnante keneen ba ngoon jot mu ñëw nga ne ko yow fa nekkoon mu ne la non bi nga ma yónnee moom dama génn fii rek ma dajeek paa jiw mu ne naa bàyyi li ma yónni naa dem li li ma yónni moom doom boobu bu amee 14 ans sa kanam noo koy def kan moo may tontu ku may tontu bi yow bismillah nooy def doom boobu non bu amee 14 ans laa wax 14 ans kay du mag balaa muy pare wax rek ngay ngay toj pes ah allahu akbar lu tax nga pes ko c'est parce que def laa def lu la métti danga ko sant mu dem keneen sant ko mu bàyyi li nga ko sant allah yéegal niveau bi nag bu dee sa jabar nag moo la bàyyi dem tëdd ak keneen nga wàcc rek ñu fekk benn waaye tëdd ci sa lal ndeysaan ñu koy raayal sikkim bi nga ni sa soxna waa kii kan la mu ne la kii moo aye tey fekk bi ngay wàcc jaar nga kolobaan jënd benn douze coups nooy def ah lu tax parce que sa jabar daf la boole keneen kon moo tax bokkaale baaxul loolu moo tax yàlla lim la sant nga la waaye def ko rek def ko mbokk jullit yi ndekke loolu mooy hikma sunu borom subhanahu wa taala di lakk der yi waaye mu koy changé waat ndax nit ñi mën a ñam mbugal bu baax a baax a baax a baax a baax ñetteel mooy al iman wal amalu salih ma tarki shirki wal maasi mujibaati li niami al uxrawiya sunu xoolee tey ñaari aaya yi ñuy jàng benn bi dafay xuppaate benn bi di bégale ñaar yi xuppaate pare nañ ci wax nañ léegi muqaddima bi mu des ñaar yi bégalaati sunu borom nee na ngëm yàlla jëf ju baax bàyyi bokkaale bàyyi bàkkaar day tax nit am xéewalu àllaaxira ëllëg yowmal xiyaamati kon lépp loo xam ne day tax ëllëg yowmal xiyaam nga am xéewalu yàlla nga am kontante yàlla nga am ngërëmal yàlla war naa tax fii ci àdduna bi nga sonn ci ñaareel bi mooy aljannatu daaru naim aljanna mbokk yi ëllëg mooy këru xéewal këru xéewal gi nga xam ne xaaliya min alkadarat dafa wéet set wicc ci ay nëx-nëx nëx-nëxu lan nëx-nëxu coono nëx-nëxu jafe-jafe nëx-nëxu naqar nëx-nëxu yoo xam ne day tax dund doomu aadama ci àdduna bi ko doomu aadama bi amee dundam neexul loolu amul alaaxira moo tax gars yi dañ naan alaaxira tuddul alaaxira ñu ne nu mu tudd ñu ne aywa jeex na ay wa jeex na bépp ay boo amoon buñ la dugalee aljanna yonent bi moo ko doon wax mu ne lu toll ne bon gënu puso ñu ne la capp génne la ne la ndax mës ngaa am naqar da ngay waat ci sa borom ne mësumaa gis nattu àdduna te ci ay seconde lañ la dugal waaye saxara tamit noonu la méttee buñ la dugalee lu toll ne bën bënu puso génne la ne la ndax mës ngaa noos di nga waat ci sa màggaayu borom ne mosoo noos ci àdduna kon yàlla nañu yàlla dugal aljanna kon ñaari aaya yooyu mooy sunu darsa tey bismillahi rrahmani rrahim إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا لهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ذليلا sunu borom nee na inna allazina kafaru kin doon jàngal ndeysaan alquran duñ jàngal tafsir ñu doon wax inna allazina joo gis kafaru topp ci seeni borom alkuna ñu doon wax inna allazina joo gis ñu ne ah mu ne kafaru topp ci ñu ne waaw mu ne ñooñu seeni borom alkuna nu kon mooy sunu aaya tay bi borom bi nee na inna allazina kafaru gaa ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla lan mooy al kufru mooy sakk jëf kufru am na aaya bu yàlla di tuddee baykat yi al kufaar kufaar ci lu muy tekki mooy yéeféer lan moo tax yàlla tuddee baykat yéeféer mooy sakk jëf al kufru mooy sakk jëf lan mooy sakk jëf mooy nga jël dara suul ko baykat nan lay def day jël gerte gas ba mu xóot suul yéeféer noonu la def yàlla daf ko defal taraanga mu gas ba mu xóot suul ne yàlla defaluma dara loolu mooy mbirum képp ku weddi yàlla rek loolu nga def waaw yàlla defal la xéewal may la def la nit moroon laa def rab def la nit def la jullit yónni ci yow yonent wàcc ci yow téere ne la jaamu ma nga gas ba mu xóot suul loolu lépp na ko non yàlla damay noos quoi may cakaay ba ci kanam quoi parce que ainsi quoi je suis boy ainsi ainsi loolu la bëgg yoon ainsi temps yi quoi xam nga dama lii quoi il faut ma noos ba ci kanam après ma doog laa jaamu loolu mooy sakk jëf yàlla defal la lum defalul kenn may la lum mayul kenn ne la yow sama jaam nga jaamuma nga lànk tib waaw weddi yàlla benn saa yi sax doomu aadama yi du ñu yem ci weddi la ilaha illallah waaye dañu koy doublé ba mu yóbbu leen ci ilhaad mooy murtad génn ci lislaam ate waaw ñu ne yàlla nga ne lan mooy yàlla yéen ñu nekk ci lycée yi waaw yenn saa nga dajeek professeur bu laan la ana yàlla waaw nga naan ko yàlla ci asamaan wala yaa mu naan la waay yow yàlla dafa am loolu ay faux problème diw nee na diw nee na diw nee na di la indil yooyu waaw moo tax Sénégal bu ñu rëccee julli nan sant yàlla de ndax programme dund bi ñuy dund mënta yóbbu nit aljanna fi ngay nekk ci kër gi di nàmp ba keroog ngay dugg nu bàmmeel même sunu biir kër yi lu yóbbu nit aljana nekku fi wala moo tax nit ñi day metti ci ñoom ñu am iman waxuma la ñu am iman mais iman bu yokk sax duñ ko am parce que ku amul faaqidu shay laa yuuti ku amul doo maye kër gi nga judd amul iman nga dem école école bi amul iman nga dund ci société bu amul iman ci lan ngay màgg ci bokkaale rek takk téere sangu deret tam nit ñi dëmm violation wax lu la neex luñ la wax nga gëm mooy sunu sunu sunu mooy sunu dund parce que sunu kër yi dara nekku fi ah xoola xale bi ci lan la juddu bi yaayam ëmbee dañ ko yóbbu ci benn benn benn guy sang yaay ji takkal ko ngandu ndomba ngandu bëjjën ñu ne ko mooy garder liir bi xale bi juddu ñu jël ndomb boobu ñu takkalool yaay ji takkal ko ko mu war a demee ko ñu takkal ko ko muy examen ji ñu takkal ko ko muy liggéey ñu takkal ko ko kooku lu muy gëm booba muy dee boo ko nee li mu ne la non gis nga dëkk bi wóorul ku bërewul ñu bëre daanu sa kaw ku gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf du loolu la ñuy wax moo tax ñëpp koo gis day takk ba dëgër këj waaw surtout nag ñi nekk ci kaw surtout ku ñu nomee dara surtout koo xam ne da ngay xëy nit ñi di ñëw ci yow da ngay xëy di sangu di tuuru ba ni këj waaw yenn saa yi da ngay gis koo xam ne bu ñëwee du nuyoo day ñëw rek bonjour gars yi ne la ngeen ne non non te bañ a joxe loxo parce que yàlla moo fi nekkut yàlla ah doo dégg amoon na jamono boo xam dañu ne ku nuyu nit rek mu yóbbu sa waay yàlla daaw leen ko dégg koo ne nii rek mu ne non waaye temps yi nuyoo dafa xewi quoi asalaamaaleykum ñu ne koo nuyu rek mu xoolal nit ñi egg foofu koo nuyu sa waay yàlla dem la ilaha waay yàlla du dem moo yomb xool théâtre yooyu rek gëmloo ko nit ñi wax ko ci rajo yi ba nit ñi gëm ko soo dajeeg jullit boo ko nee nii mu ne la non non non temps yi nuyoo nañuy def attention ci nuyoo yi quoi waxuma sa xale yi ñooy wax loolu mais mag yi magum jëmm yi moo tax moo tax moo tax mbokk yi kufru baaxul weddi yàlla baaxul inna allazina gaa ñi nga xam ne allazina nag lan la ismu mawsul kafaru dañoo sakk jëf dañoo weddi yàlla lan lañ weddi bi ayatina sama alquran bii dañoo weddi sama téere bi gëmuñu ko ndeysaan allahu akbar Sénégal dañoo am problème alxuraan doo dégg mukk ku ne alxuraan wax na ko diw nee na rek diw nee na rek diw nee na même conférence sax yenn saa yi ñu ne jël leen du ñu ne déedéet déedéet déedéet boo ko fi ndee moom yàlla rek la fi wax doy na kenn du fi mun a kontaan indi ñeneen tuuti bokk waaw ndeysaan benn dëj laa demoon benn xale bu lab géej ñu dem suule ko ñëwaat ay mbokk yu ne moom defal waxtaan delloo nit ñi ci yàlla jël alxuraan waxtaan ñëpp na tekk ak ñëpp yaru ñu jékki-jékki rek ñu jox beneen waay waa ji daal di saaraani rek gars yi daal di jóg ku nekk di fecc daan waay lii la waay affaire bi dañ koy neexal waaye tiital nit ñi rek am ni ko dëj de bu demee bañ ciy fecc boobu nit ñi dematuñ ci yàlla waaw Sénégal nag noonu la mel li tax ngeen di gis téere yàlla bi tumaranke mooy nit ñi bëggunu dëgg waaw nit ñi bëggunu dëgg moo tax téere yàlla bi tumaranke ku weddi téere yàlla nag gis ngeen li yàlla nar a wax ci moom léegi inna lazina gaa ñi nga xam ne kafaru danoo weddi bi ayatina sama ay sama téere bi borom bi nee na sawfa nuslihim naaran xalseet laa leen dugal safara bu yàlla may wax ak nun de lii di lu nu liir ci lobs wala sid wala wala wala wala wala déedéet ki yàlla mooy wax borom asamaan ak suuf yàlla nee na ñi ma weddi ñi weddi sama téere bi weddi samay wax sawfa nuslihim giñ naa ci sama màggaay dinaa leen dugal naaran safara kon nag ku yebu xam waaw li menace la tëkku la bu nu yàlla tëkku te sabab bi mooy lan dañ koo weddi dañoo weddi waxu yàlla sawfa nuslihim xal seet naa leen a dugal naaran safara mu ne nudxiluhum naaran yaxtariquuna biha naa leen dugal safara soo xam ne da leen di làkk mbokk yi sunu safara aduna bi kan moo ko ñeme ah su benn waay nekkoon faxiir musul am dara benn milliardaire woo ko ba mu ñëw ne ko dama bëgg ñu taal brin almet bi tiimale ko sa nopp ba brin almet bi jeex ma jox la milliard mu ngi nii mu compté milliard bi teg ñu indi almet bi teg ndax di ngay nangu doo nangu lu tax brin almet ñu tiimale ko sa nopp taal ko rek tiimale ko sa nopp bi bu brin almet bi jeexee ñu jox la milliard après nga faju ji kooku wax mu ne gis nga téye sa milliard boo ma ci may nga may boo ma may ma dem sama yoon dama dof bay lakk sama nopp yow da nga dof xanaa xoolal beneen almet ni mu tuutee mënoo koo dékku safara du loolu la beneen almet kenn ci ñun ñemewu ko dékku kon dinañ toog ci gaz kan mooy toog ci gaz fii ñu toog kan la ñuy taal gaz bi ne la toog ci bu gaz bi jeexee ñu may la 2 milliards safara ñemewuñu ko attanuñ ko safara moo xejul ci ñun allahu akbar adama bi mu wàccee ci kaw suuf xam ngeen adama da doon lekk aljana sans sans sans togg lu mu bëgg rek da yàlla day indi adama wàcc yàlla génn na ko mu wàcc mu bëgg lekk yàpp wala coono ñëw mu jàpp picc rey suqi mu bëgg a lekk mu sicc mu ne lii ak aljanna du benn yàlla lii nag mu ne lii ñorul nan laay def ba mu ñor ah ma may la ci sama safaras mu ne may ma ci gaa yi nee na yàlla dafa dagg ci jahannam lu doon ne bekk suukar tëmbal ko ci géej gi géej gi di di riir di vef ay vague di këpp ci suuf si yàlla génne ko sànni ko ci montagne yi montagne yi explosé bi montagne yi explosé li dal ci ñax mi daal di tàkk lu loolu daloon ci ñax mi lu tuuti loolu tàkk yàlla mu ne aadama jëlal loolu waaye leneen li xejul foofu jël leneen li delloo jahannama mu ne leneen li maa ngi fii di leen xaar alaxira loolu sax dafa tuuti jàngeen yonent bi ne iza stadda al xar fa adbiru salaa fa inna siddatul xar min fay i jahannam yonent bi ne bu tàngee bu seen addina bi bu tàngee ba ngeen génn kër yi nga gis paa bi sol kilot ta wow mu ne la xam dafa tàng yor uppukaay ah nga romb ñële ñu nekk tefesu géej nga romb kële mu ngi tëdd ci suufu climatiseur am na koo xam ne tàngaay bi jàpp na ko mu ngi nelaw ci suufu garab ba buñ ko diri woon sax du ko yëg yeneen bi nee na bu ngeen gisee loolu bu ngeen di julli tisbaar na ngeen ko reculer bu kenn julli ci tàngaay bi yonent bi ne xam ngeen lu tax mu tàng ñu ne waaw mu ne jahannama mooy noyyi jahannama mooy noyyi waa adduna munuñ munuñu munuñu munuñu faa nekk munuñ toog seen biir néeg kon bu leen ci dugalee nag mbokk yi ma ne jahannama mooy noyyi ba mënunoo toog sunu biir kër sunu kër lan nekk de jahannama di noyyi addina bi tàng waaw kon ëllëg yowmal xiyaam bu ko yàlla ubbee ni nu mu ngi nii nag fu ñu jëm Malik ibnu Dinar nee na bu ma amoon nu ma dimbali dinaa leen kër gu nekk danaa fa teg benn nit fajar mu yuuxu naan waa kër googu annaar annaar annaar allahu akbar safara xejul ci ñun mbokk yi xejul ci ñun lu toll ne tarafatal ay ni ci safara xejul ci ñun kon naka lañ ko bëgg a dékkoo ndax noosu àdduna yu ndaw ndawaan yi ndax poñetu àdduna bu ndaw ndawaan bi ndax lii nga xam ne léegi mu jeex wallaahi léegi mu jeex dama amoon benn góor gu ma daan àndal julli fajar yàgg na boobu xale bu ndaw laa foofu laa njëkk a gis kuy julli di xabru góor gaa ngi tudd Mamadou Thiam suñu ko ñëpp bañ ko boobu ñun xamuñu lu tax nit ñi bañ ko jàkka ji ñoo ko gënoon bañ nag boobu ñun xamuñu këram sax dañ ko bañ jabaram yeeg doom yi fajar gi man dong lay àndal jàkk bu ñëwee ndeysaan mu génneeg moom mu jàpp sama loxo ñu ñoo toog ci buntu këram dafa am pied mu ne ma toogal ma toog mu ne ma wallaay bu yow sa papa ak sa yaay bu ñu la doon jaay ma dem jënd la mu ne la fii sama wet mu ne ma ana borom kër gi mu ne ko papa kii gaañu na du ma xam fu mu jëm mu ne ma ana borom kër gi mu ne kooku tamit gaañu na mu ne ana borom kër gi mu ne ko gaañu na su yàggee dama yaakaar ne ma ne waaw est-ce que paa bi normal na mu ne ana borom kër gi ma ne ko gaañu na mu ne teg te caag mu xool ma mu ne ma maa ciy topp wax na dëgg dem na waaw moo ci topp waaye xam naa man tamit maa ci topp wallaahi ah lu ma doon wax moo am ni moom dem na kon noonu la noonu la ni demee amul amul dañu dee tourné la rek ñoom dem nañ ku nekk fi ma fi may wax ak yow ni xoolal sa mbeddu koñ xoolal sa mbeddu kër fukki kër yi la féete ndeyjoor fukki kër yi la féete càmmoñ environnement boobu nga xool paa yi fa nekkoon ak maire yi ñen ñoo fa des ah ndax am na ñu fa des ñu bari ku nekk fi nga toog imagineel sa koñ bi nga dëkk vingt kër ndeyjoor vingt kër càmmoñ ci kanam ak sa ginnaaw nga xool ñi nga dëkkaloon ñu bari dem nañ bu nit ñi dem nag di dem di dem di dem nga yow yaag fi bu yàggee yaay dem toppi leen waaye xam nga ne ñoom dootuñu dellusiwaat allahu akbar waaye bu ñuy dem yàlla fekk ñu dem ci lu baax borom bi subhanahu wa taala nee na ñii kullama saa yoo xamante ne nadijat ñor na ishtawat ñor na juluduhum seen der yi baddal naa lahum juludan gayraha ma changé waat yeneen der boroom xam-xam yi nee nañ ñii yàlla di wax ne yàlla da leen di changé ay der mu ne war wiya anna juludahum tubaddilu fi saa miata marra xam ngeen waxtu wu nekk ñaata yoon la yàlla di changer der bi ñaata yoon ci par heure téeméeri yoon miata marra ñëw na ci beneen riwaaya bu Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu mu ne aaya bi dañ ko jàng ci wetu Omar fa qaala umar lil qaari aidha bi ñu jàngee aaya bi omar ne ki doon jàng aaya bi répété waatal aaya bi waa ji ne inna allazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naara كلما نضجت جلودهم بدلنا لهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب mu ne bi waa ji waxee tey lii répété waat aaya mu ne ko répété waatal waa ji répété fekk am na benn borom xam bu tudd Kaab mi ngi toog fa qaala ya amir almuminin ana indi tafsirun laha kaab ne omar yow amirul muminin yow njiitu jullit ñi man dey mën naa firi aaya bi omar ne ko firil ma ko fa zakara lahu annahu tubaddalu fi saa alwahida miata wa ishirina marra kaab ne ko gis nga ñii yàlla nar a dugal safara di leen lakk yàlla dina changer seen yaram bi par heure téeméeri yoon ak ñaar fukk par heure saa yooyu der bi ñoree yàlla changé der bi ñor yàlla changé heure bu nekk téeméeri yoon ak ñaar fukk yàlla dina changé der yi pour lan yàlla wax na ko li yazuqul azab pour ñu gën a ñam mbugal mi pour ñu xam ne li leen doon yàlla wax du caaxaan allahu akbar jàng ngeen ci alquran yàlla mu ne wa barazu lillahi alwahidi alqahar waaye jàkkaar nañoo nag yàlla tey nag ñu ne wa uzlifatil janna lil muttaqin ñu ubbi aljanna ñeel ñi ragal yàlla wa burrizatil jahim ah ñu ne leen li ngeen doon weddi mu ngi ni tey aywa li ngeen doon weddi acca tey nag woo leen ñi nga xam ne ñoom ngeen yaakaaroon ne tey dina leen xeetali ndeysaan acca woo leen gaa yi nga gis ñoom ñoom ñu daal di su sujjóot ñoom ñoom ñu daal di ndeysaan torox rukoo ñu ne yow yàlla sa jàmm la nuy ñaan wees na wees na wees na réccu daal di ñëw matt baaraam commencé ñëw matt loxo fekk c'est trop tard yàlla du waxantu yàlla lu leer nañ ñi lañu wax sunu dëgëree bopp sunu féttërloo di bew bewlu jàpp ne am na ñeneen ñu wan ñu mën a wañ caaxaan yi ñuy dégg fii ci mbedd yi ak ci ay rajo ci ay cassette ak CD ak ay clé caaxaan yooyu ngeen di dégg ñu naan diw nangam nangam diw moo sone woon malakal mawti diw moo gis nga yooyu ku ko gëm ba nga lànk bañ a jaamu yàlla ba nga dee fekk la ba dugal la bàmmeel allahu akbar du baax de lii yàlla dina wax mooy dëgg ngi nii ndeysaan amirul muminin bi mu ne baxlul baxlul waar ma da ko ne yeg fii ka kitaabullah waar ma mu ne ko téere yàlla doy na ci yow bu bëggee waaru téere yàlla baa ngi nii borom bi nee na ñii kullama nadijat juluduhum baddalnaahum juludan gayraha saa yu deri lakkee yàlla nee na ma changé waat der yi xam nga doomu aadama yaramam bi ay der yu bëri yu lalu la gis nga der bi ci kaw boo ko xoosee nii da ngay gis beneen der bu weex mooy ñëw beneen der bu weex mooy ñëw ci biir der yi dañoo tegaloo yàlla noonu la koy lakkee di ko changé waxtu wu nekk yàlla dina ko changé téeméeri yoon ak ñaar fukk ci xadisu Omar lu tax li yazuqul azab pour ñu ñam mbugal mu ne na ngeen yëg ne inna allaha yàlla kaana mustadeñ azizan di not ci nguuram xakiman di xereñ kaana saa yu nekkee ci alquran jëm ci yàlla kenn du wax nekkoon na na ngeen yëg ne inna allaha yàlla kaana mustadeñ aziz di not ci nguuram al aziz mooy ki not ci nguuram ki nga xam ne nguuram gi li ko neex rek rek moo fi am leneen du ci am waaye xakim mooy ko xereñ ba der bi bu lakkee mu changé waat ko ndax moom moo yor der yi moom moom moom yaram bi gis nga xikma bi mooy yàlla éliminé na dee dee amatut allahu akbar dee amatut waa aljanna bu ñu duggee aljanna waa safara dugg safara dañuy indi dee ba diggante ak yàlla naa safara ne ñu ne waa aljanna ñu ne ñu ne dee ngi nii lu ngeen ci wax ñu ne rey ko balaa muy ñëw fii di nu génne dañ koy indi mu mel ni kuy ñu ne yéen waa safara lu ngeen wax ci dee ñu ne ey waay yàlla bàyyi ko bul ko rey bàyyi ko mu ñëw fii génneenu ñu ne leen déedéet dañ koy rey buñ ko rendee ba dee faatu ñu jàkkaarloog waa aljana ne leen xuluut bila mawt sax leen dootu leen dee ñu jàkkaarloog waa safara ne leen xuluut bila mawt rebe réccu nag daal di am kiñ naan muñal mooy koo xam ne lii nga nekk xam ne dina jeex wala waaye ki nga xam ne li nga nekk du jeex suñ la bëggee wax muñal du may day metti moo tax waa aljanna waa safara kenn du leen wax muñ leen ndax la ñuy nekkee ci mbugal muñ mënu ko dinde waa àdduna kay lañ naan leen muñ leen ñi feebar ñu ne leen muñ leen waaw waa safara lañ naan leen bu ngeen muñee bu ngeen muñul moo xam waaye lii ngeen nekke moom dootul jeexati sunu borom mooy ku xereñ mooy def lu ko neex bàyyi na ñooñu ñëw na ci way gëm yàlla yi yàlla ci yàlla boole mu ne wallazina amanu wallazina gaay ya nga xam ne ndeysaan wax naa leen sànq ki ñu doon jàngal da doon wax inna lazina joo gis gaay ne a mu ne kafaru topp ci gaay ne a mu ne seeni borom halku nanu ndeysaan waaye inna allazina joo gis gaa yi naa mu ne amanu tegu ci mu ne ñooñu seeni borom texe nan ndeysaan dugg nañ aljanna rëcc nañ safara yeneen ci yàlla boole wallazina amanu gaa yi gëm yàlla al iman kam arkaanul iman ponki ngëm yi ñaata la juróom benn loolu mooy iman bul dem feneen soo déggee iman al inna allazina amanu mooy ñu gëm juróom benn yi ngëm loolu la de ponki ngëm juróom benn la juróom benn yooyu ngay gëm nga bokk ci allazina amanu boo ci bàyyee benn sa sa ngëm manqué na al imanu billah al imanu bil malaika al imanu bir rusul al imanu bil kutub al imanu bil yawmil akhir al imanu bil qadri xayrihi wa sharri benn bu ci nekk rek téere la moo tax ngëm jafe imaanu billah rek problème la gëm yàlla rek dañ lay tasal gëm yàlla mu nekk téere gëm malaaka yi ñëw gëm gëm ba mu nekk juróom benn benn bu ci nekk nga war ko xam soo ko maîtriser léegi nag nga nekk allazina amanu léegi nga ci bokk wallazina amanu gaa ñi gëm yàlla wa amilu saalihaati ñu taxaw ci jëfe farata yeeg naafila yi di góorgóorlu ci li leen yàlla sant saa yoo gisee al iman lu ci tegu mooy al amal borom bi nee na sa nudxiluhum danaa leen dugal aay bu njëkk bi lan la yàlla waxoon ñooñu sa nuslihim ñii mu ne sa nudxiluhum ñi la dinaa leen jaaruloo ñii ñu ne dinañ leen dugal ñee dañ leen di jaaruloo dañ leen di jàpp sëcc il leen ba biir safara tëmbal leen ñii nag dañuy ubbi bunt yi ne leen dugg leen allahu akbar du benn de sa nudxiluhum dinañ leen dugal jannaatin ay aljanna yoo xam ne tajri day daw min taxtiha ci suufam al anhaar ay dex ay kër la yoo xam ne kër yi ñu ngi daw ci kaw ndox suñ fa duggee yàlla mu ne dugg leen xaalidiina fiha abadan allahu akbar dugg leen éternellement su boobaa nag gars yi dañuy nekk ay immortel doo dee amatul amatul feebar amatul ba problème bànneex rek ba kañ bànneex yi fan la yem bànneex yi fan la yem ah amul ab du jeex xaalidina fiha abadan lahum fiha yàlla nee na waa aljanna am nañ ci àjjana azwaajun ay soxna mutaharatun yu laab yu set wicc min al aza wal qazo mutlaqan soxna yoo xam ne duñu gis baax comme sunu soxna yi duñu gis deret dañoo laab set wicc la leen yàlla di may la leen yàlla di fayee yàlla mu ne wa nudxiluhum dinaa leen dugal zillan ci ker goo xam ne zalilan dafa mat sëkk ker goo xam ne tàngaay amu fa jàngeen ci suratul waaqia yàlla mu ne dinaa leen dugal ci ker goo xam ne du nu gis tàngaay man yàlla dinaa leen keral yal na nu yàlla keral jàngeen xadiis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na juróom-ñaari nit yu yàlla di keral keroog keppaaru arsh bis bi nga xam ne ker naaj naaj rek mooy am ker du am juróom-ñaari nit bokk na ci imaamun adil bokk na ci waaw mooy imaamun adil saabu nasaa fi ibadatillah aw fi taatillah aw ñetteel ñaar ñu bëggante ngir yàlla bi ñu demee bay tàqalikoo ñu tàqalikoo ngir yàlla ñeenteel ndaw su woo benn xale bu góor xaaji guddi fu kenn fekkewul mu ubbi bunt bi fi laay fanaan mu ne ko inni axaafullah juróomeel ay nun bakat min xasyatillah bët bu jooy ngir ragal yàlla ba ñu mat juróom ñaar yonent bi nee na ñi ëllëg yowmal qiyaam yàlla dina leen keral bis bi nga xam ne ker du am lu dul keppaaru arsh dal nañ ci yàlla boole kon ñaari aaya yaa ngi noonu ñoo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu aljanna mu boole ñu ci ñi nga xam ne yàlla dina leen keral ci garab googu nekk biir aljanna mu nekk sajaratul xuld nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na fil janna shajaratun tusamma sajaratul xuld mu ne yasiru raakibu fi zilliha miatu sana lam yaqta zillaha mbokk yi aljanna am na fa benn garab goo xam ne garab gaa ngi tudd sajaratul xuld garab gi ku war dugg aljanna nga war ci waruwaay di ko dox di nga jox téeméeri at naaj du la tiim yaa ngi ci suufu garab gi kon garab googu branche banqaasa mi nan la toll banqaasi garab googu nan la toll garab goo xam ne di nga war di dox ci suufu garab gi téeméeri at ci ker rek nga nekk garab gaa ngi la tiim te yaa ngi dox téeméeri at ñan la fa yàlla di keral mooy allazina amanu kon yàlla am yàlla giijal xoolal benn garab goo xam ne di nga dox ci suufu keram téeméeri at foo génn ker gee lay tiim téeméeri at fii kan moo fi mën a dox ñaari ñetti mètre rek ci benn garab nga nekk ci garab ci garab gi ci àddina amoo ko waaye xoolal téeméeri at ngay dox garab gi tiim la yaa ngi dox ci suufu garab gi boobu ma nga toog de da ngay dox laa wax di dem téeméeri at garab gee la tiim foo dem moom moo fa nekk yàlla moo am yàlla te li mu am di jeex moo tax ngeen dégg mu ne walillahi xazainu samawat wal ard te tamit moo ko moom walillahi miraasu samawat wal ard moo tax ngeen dégg ñu ne ki mujj a dugg aljanna bi mu duggee bañ ne ko fii mooy sa kër mu ne lii ñu ne ko lan la mu ne allahu akbar lii dafa rëy yàlla mu ne ko may naa la ñaari toll noonu ki mujjee dugg àjjana këram comme àdduna la toll ki mujjee dugg te bi muy yéemu dañ ko ko dubleel bi ko malaaka bi di dugal mu dox ba ci àgg mu sujjóot malaaka ne ko lan la mu ne damaa gis yàlla mu ne anam mu ne mu ngi nii mu ne ko lii fleur la lii fleur la allahu akbar xoolal mu gis fleur aljanna mu sujjóot defe ne yàlla la ndax nu mu neexee ndax nu mu rafete yàlla nañ fi yàlla dugal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am na question incha allah tafat waaw